auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora asalaamaaleykum képp ku ñuy déglu man la Ismaïla maa ngi di massawu si balaa bi ñu yàlla wàcceel ah moom moo xam moom moom mën moom moo sañ yàlla nañu ko teggil si barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm armée bi di gërëm waa gendarmerie di gërëm waa polis di beral ngërëm nag tout le personnel soignant ñi nga xam ne dañu nekk en contact direct ak ñi nga xam ne dañoo feebar ah ñun ñëpp ku si nekk yaa ngi si biir kër tee sa njaboot waaye yéen nag yéen ngi si mbedd mi ñu ngi si hôpitaux yi pour taxaw ñi nga xam ne dañoo feebar yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax amu leen morom gàcc ngaalaama yéen merci beaucoup